الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الوجود العالمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ اغدر لنا بهذا المعذر ولتعتفي بنصرة تحتلنا بالسفر ربي سهل الصدر ويسل الأمر وأعلص حقر النسان يحقو قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy safoo duñu seetaan ci fii suñu seen bi ñu tuddee Al Moubastir TV ñi am mbégte ak kontante ci teewaay bi fii ci suñu jotaayu faju mag ñi ñu ànd ceeg yéen euh, di leen fàttali tamit euh, na leen abonné leen ci seen bi te ngeen partage vidéo bi te zame ko ànd ak commentaire bi ndax muy yaatal li nga xamante ni mooy liggéey bi tey nag suñu tomb ci suñu jotaayu faju mag ñi muy faddalul quran ngeen alquran ci ki koy jàng lan la ci yàlla wax alquran lan lay jëriñ ci koy jàng alxuraan lan mooy lan la ci yàlla digle ak yan dëxër lañu ci yàlla defal loolu mooy suñu waxtaan suñu tomb tey ñu dontu bari na it ñu am ci yenn ci ay alquran ak yenn ci àddis yoo xamante ni dinañ ko sukkandikoo ngir nit ñi am itte te it am ca watte ci bana jàng alquran te xam ne yàlla moom lañu ñu loolu hadis bi ci njëkk ci ñu ko ci abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu annahu qaala daf ne alquran safiyon mustafiyon wa mahilu masduqun fa man jaalahu amaamu qaadahu ila aljanna wa man jaalahu xalfahu saayiqu ila nahar mu ne alquran mooy ki ràmm ki ñi bun yowmal qiyaam bu ñëwee ñu raw la ràmm jaam amul benn téere wala amul kenn koo xam ne am na aksi pour ràmm ko leeru alquran mooy ki nga xamante mooy jóg ngir nekk lay ñaal ki nga xamante ni moo ko doon jàng alquran jooju nag moo koy ràmm waaye mooy doxee jëm ci képp ku ko juba képp koo xamante ni dëggu na ak njubam jëm ci moom waaye cépp koo xam ne def nga alquran mu nekk sa kanam dana la dana la gindi wamat la yóbbu la ba biit ajana képp koo xamante ni def nga alquran def ko ci gannaaw kooku dana la wamat yóbbu la ba safara bon ki nga xamante ni ittewoon na di jàng alquran saxoo ko di jàng alquran kooku alquran du ko bàyyi mukk lu dafa dugg àjjana ki nga xamante ni du jàng alquran te jëfewut njëgu alquran kooku alquran daf koy wan ginnaaw du ko bàyyi mukk lu dafa dugg safara loolu hadis boobu Abdullah ibn Mas'ud moom laa ko solo jëlee ko ci yéen sallallahu alayhi mu wax ko mu waxaat ne yonent bi daf ne itlahu fa inna allaha taala yu ajrakum ala tilawatihi bi kullu arfin hasana hasara mu ne na ngeen jàng alquran yàlla dana leen yool ci jàng gi ngeen di jàng alquran xaraf bu nekk dana ko def muy nekk fukk tiyaabo ñeexal la fukki xasanaat yu baax lañ la koy defal bon gis nga ne alquran dafa sakkan lool mooy commerce boo xam ne amul perte boo koy jàng araf bu ne yàlla dana koy bindal mu wax ne alif laam miim déedéet alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la boo ko jàngee yàlla dana defal ci araf bu nekk fukk yu baax la la koy bindal effacé la fukk yoo xamante ni yu ñaaw la yoo xamante def nga ko ñu jëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne maaj tamaat xawmun fi bayti min buyutillah yatluuna kitaaballah wa yatadarasuunahum fi ma baynahum illa nasalat alayhi zakinatan wa qasiyahum rahmatan wa xafatuhum malaikata wa zakiru llahu taala fi ma hum indahu mu ne amul koo xamante ni xeet daje dajee ci néeg ci néegu yàlla yi di jàng alquran wala di ka jàngulu lu dul yàlla dafa wàccee ci ñoom ak dal wàccee ci ñoom ak dal waaye it wàccee ci ñoom ak yërmaane def ko ci ñoom waaye wërale leen ay malaaka yoo xamante ni ñoo leen di xaar te ñooy malaaka yërmaane lañ yàlla wax ne malaaka yi ne yow yàlla xoolal sa jaam yi ñu ngi ci kaw suuf di la tudd lu dul yàlla mu ngi leen di tudd waxtu wi nga xam ne tudd nga leen ci suuf yàlla mu ngi lay tudd ci xasamaan te it dana la malaaka yi nekk ci kaw xasamaan malawul lax laa ñoom it ñu ngi lay tudd foofu ngir la ngeen dajee di jàng alquran bon jàng alquran mooy tudd yàlla gu man afdalu zikri tilaawatul quran li gën ci tudd yàlla mooy jàng alquran alquran nag yenentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ko hadis boobu ñu ngi ko jëlee ci yasid bun xabi mu jëlee ko ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne man istasara alqur'anan qafa allahu tabaraka wa taala an aboyhi asaban wa in kaana kafirin mu ne képp koo xamante ni mokkal nga alqur'an yàlla dina woyafal mbugal ci seen wayjur donte dañoo nekk ñoo xam ne yéefar lañ yaay ak baay buñ nekkee yéefar doom ji ñëw mokk alquran alquran ci mbaaxam ak ci darajaam yaatum ak am solo gi am solo te ci la lay ràmmu baay ji ak yaay ji ci la leen di ràmmu te di leen woyofalal ak mbugal yonentu nee na boo amee doom mu mokkal alquran juróom-ñaar fukk ci wàllu yaayam dana leen ràmmu dugal leen ajjana dana jël juróom-ñaar fukki ci wàll papaam dugal leen ajjana bundoo rek war ñu jël suñu doom yi jàngloo leen alquran te it sax di jàng alquran ndax loolu mooy li nga xaman moo ñuy jëriñ eh, ñu jëlee ko ci beneen sadis boo xamante ni Ghalib ibnu Bashira moo ko jëlee ci Usaym ibn Ali radiyallahu anhu mu ne yonent sallallahu alayhi dafa wax ne eh, man qara alqur'ana fi salaatin wa huwa qaa'imun falahu bi kulli harfi mi'atin hasanatin wa man qara alqur'ana fi salaatin wa huwa qaa'idun آه، كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة ومن قرأ القرآن في خير صلاة آه، فله بكل حرف حسنة حسنات ومن استمع سيء من كتاب الله تعالى وهو يريد الأجر كتب الله بكل حرف حسنة ومن قرأه القرآن حتى يأتمه kaanat lahu inda allahi daawatun imma muajjiluhu wa imma muajjilatuhu loolu ah, ñu ngi ko jëlee ci Xaalid bun Bashir mu jëlee ko ci Husayn bun abi bun Ali bun abi Talib radiallahu anhu ah, karamallahu anhum mu ne yenentu sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xamante ni yaa ngi jàng alquran te ci biir julli fekk yaa ngi taxaw xaraf bu nekk dañ koy def téeméer téeméeri xasa xasara mooy ah, xasara mi a mooy téeméer lañ la koy def ci yu baax ci xasanaat lañ la koy defal mu ne bu fekkee ne da nga koy jàng te julli te fekk yaa ngi toog euh, bu boobaa juróom fukk lay taxawee xasanaat araf bu nekk da ñëwee cinquante point bu fekkente ne da nga koy jàng alquran nii ci lu dugul julli bu boobaa xaraf bu nekk dañ la koy defal diis point dañ la koy noteel bu fekkente ne da ngay déglu alquran ngir bëgg ci ak yool wala ngay toog déglu alquran ngir bëgg yàlla yool la ca mu ne xaraf bu nekk benn lañ la caay bindal ci lu baax bu fekkente it da ngaa saxoo jàng alquran di ko wàccee di ko tëj di ko dalee alif laam yi mina jannati yi mu ne dara du dox sa diggante yaag sa boroom am nga audience bu mu leer amel boo xamante sa borom dana la ko recevoir loolu nag benn dafay gaaw wala mu yéexee la ko rek mu gaaw wala mu yéex da nga toog ak sa borom subhaanahu wa taala bon lii rek war na tax nit ñi góorgóorlu ci jàng alquran ndax alquran nekk na luy jëriñ doomu aadama bi ñu jëlee waat ci hadis boo xamante ni ñu ko sol ki ko soloo Ah, jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy abi mu ne annahu yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man taalama alqur'ana suma nasiyahu min gayri usrin jaa yowma alqiyaam ajzamun mu ne ku jàng alqur'an ba pare fàtte ko ci lu dul ngànt kooku bu ñëwee yowmal qiyaam dañuy dagg ay loxoom këtt lay doon muy koo xamante ni ay loxoom day dagg bun nañu moytundikoo jàng alquran ba pare du ko fàtte bon ci jàngul alxuraan waxuñ ko ko jàng ba pare fàtte ko ci lu dul ngant loolu kooku nee na bu ñëwee yomal xiyaam euh, yàlla dañuy dagg ay loxoom day ñëw ak loxo yu këtt mu ne ñu jëlee aat ci e, sa saalen hadis yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ñett ngi nii salaasatun laa yastaxafu bi xaqihim illa munafiqun ñu ne ko imaamun muxsitun wasu saybatun fil islaam wa amilul qur'an mu ne ñett ngi nii ñett yi kenn du suufeel seen àq lu dul kooku dañ koy tuddee ne kooku naafeq la ñu ne kan muy imaamul muxsit muy ilimaan bu jub ilimaan bu jub boo jalgatee ay àqam ki koy jalgati kooku naafeq la bi ci des mooy wasu saybatun fil islaam ku màgget bi jaaw ci lislaam boo jalgatee ak xam kooku boo ko woyofalee kooku naafeq lay doon wa amilu quran mooy ku wuttu alquran ci dënnam jàng ko bu mokkal ko nga suufeel ko doyadal ko kooku ki koy doyadal kooku naafeq lay doon bon nañ xam ne inna hasal quranun hablullahi matin alquran bi mooy buumu yàlla gi dëgër gi ku ci jàpp da nga yegg suñ borom te du dagg wa nuurul mubiin yàlla dana defal leer bu bér da nga leer naññi wa sifaa'un naafi'un te mooy liy faj nit ñi di leen jëriñ di leen faj seen feebaru xol yi leeral seen xol di leen bégteel waxtu nekk bon alquran moo ko mën a def wa muñaajatun liman tabi'ahu képp ku ko saxoo di ko jàng yàlla na la may mucc bon yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a ci say pexem noon kaaraange gi gën mooy ngay faral di jàng alquran ndax dëkk bi ñuy jàngee alquran yàlla dafa wàccee mbugal mukk dëkk quartier bi ñuy jàngee alquran yàlla dafay def leer kër gi ñuy jàngee alquran dafay def leer moo tax yonent bi waxoon na nawilu manazilakum bis salaatin wa bi tilaawatil quran leeral leen seen kër yi ci julli di ci julli di ci naafila waaye waxtu waaye waaye walbatiku it di ci jàng alquran nañ da ko def ci kër ndax alquran dafay leeral kër te it yow mi bëgg mu ci kaaraan ki gën mooy nga saxul jàng alquran ndax képp ku jàng alquran yàlla dana la musal ci saytaane bon nañu saxul jàng alquran waaye it wala yuajun fa yuqimu alquran day fekk lu dëng jubbanti ko bon yow mi saxoo jàng alquran yàlla alquran dina def mu nekk ku jub bon alquran dafay jubal ndax yàlla nga koy wax inna haza alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminina alladina yaclamuuna saalihatin anna lahum ajran kabiran ha téere bii mooy gindi mooy téere bii jubal mooy jubal am xeet buñ ko jàppee danañ jubal te it mooy bégteel ñi nga xamante ni dañ koy jëfee yàlla mu ne préparé naa ci ñoom ak euh, yool boo xamante bu mag la bu nañu góorgóorlu di jàng alquran nañ saxoo jàng alquran guddi ak bëccëg waaye nañu góorgóorlu ci jàng alquran di ko jàngal suñu doom ndax téere la kat boo xamante ni biñ ko jàngee war nañu fexe xam lu ci yàlla wax ak lu ci yenen lu xamante ni moom la ci yalla digal ñu def ko li nga xamanteni mom lañu ci yalla téré ñu bayiko ko ndax alquran mo waxee solo way ñeek solo way mujji te yit alquran mo ñu xamal dembu xamal suñu tay xamal suñu ëlëk bu buñ ci jàppee danañu gindilikoo danañ nekk ñoo xamante ni ñu jub lañ nit ki nak bu bëggee baax fay jàng alquran bon mag ñi fi gis yépp ñu màggal leen ak nuñ mën a toll rek alquran rek mooy ki nga xamanteni ni moo leen ko def bon alquran boo koy jàng yàlla dana la defal jàmm dana la defal sutura dana la defal xéwal te it dana la dàqal mboolem loo xam ne ay jafe-jafe la bon nañ di faral di jàng alquran di ko jàngalu te di ko jàngal suñu doom ndax loolu li nga xamante ni mooy li nga xamante mooy li te képp koo xam ne jàngoo ko it bu yomal xiyaama danga ko layoog sa borom koo ko jàngul sa doom it bu ëllëgee danañ ko layoog sa borom bon nañu ngi leen ñu góorgóorlu di leen wax ne nañu góorgóorlu ci jàng alquran te di ko jàngal suñu doom yi ndax alku ndax loolu moo nekk li nga xamante mooy lu ñuy jëriñ tey nag li ñuy joxe mooy yow mi nekk sa biir kër te bëgg nga am jàmm bëgg seytaane dàqu bëgg kër gi naat da ngay fexe bind li ñu tuddee sootu baqara wala nga saxoo di jàng sootu baqara guddi sa kër boo koy jàng sa kër danañ juboo danañ nekk benn dana xam naataange dana xam leer te kër bu ñu koy jàng gént bul ko bañ sa kër gént na nga fexe di jàng sootu baqara saxoo ko di ko jàng sootu baqara sa kër boo ko mëntu jàng nag na nga wut ku ko bindal nga wut deru xarab tabaski daf ko ci suul ko ci biir kër gi incha allah kër gi dina naat kër gi dina xam jàmm te seytaane dana leen tëddu insha allahu rabbi nda ñu leen leen doon wax ne euh, di leen wax ne na ngeen di partage vidéo bi te it euh, di abonné wu te te abonné ci seen bi da ngeen di def seen commentaire te di ko zame ñu ngi leen di ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaan di leen jox dig daje benn ñoon insha allah wa aaxiru daxwana alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu